asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéenay seetaan Sénégal 7 mu mbay peex àndanteeg doomu ndeyam bi nga xamante ni mooy maxtaan bu ah ñu fas yéene bu bees tax li nga xamante ni Sénégal yëpp ñu ngi ko doon xaar waaye àddina bi yëpp ñu ngi ko doon xaar jot na nag mu jóg peex ñëw ci ndaanaan ànd koo doomu ndeyam maxtaan bu loolu jot na moo tax nag bi mu jotee nag. fii ci Sénégal 7 lay amee mu jóg peex daal fas yéene indi émission démb ak tey lan moo tax ñu ni démb ak tey Matar démb waroon ñu naan tey waaye tey moo tax ñuy waxtaane démb ndax ñi nekk tey bu ñu amul du ñu mën a waxtaane démb waaye la xewoon démb tamit bu xewul woon ñi nekk tey mënuñu koo waxtaane moo tax ñu indi émission démb ak tey Matar looy wax ci émission démb ak tey émission bu mag lay doon fii ci Sénégal 7 muy démb ak tey kuy bañ sa démb nag sa démb baaxul. Mhm. ñu fas yéene waxtaane nag ay nit démb yoo xamante ni kenn mën leen a fàtt ndax seen jëf. dëgg la ku ci mel ni Lat Joor nga ne nag si lam borom daal leen yàmmal si dëgg la saa xel fànn ku baax ci réew mi moo la meññ. Mhm. maam Maharam Mbàcke maa ngi sëriñ si ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lasukaa bi moo liggéey ñu séddale réew mi mhm. ak yeneen yeneen yëpp dañ ko waxtaane fii ci démb ak tey ci Sénégal 7 waxtaan uni mbub ak peex mbokk bu ko kenn tardé ndax ku bañ sa démb rek sa baaxul te ku bàyyi sa cosaan loo jàpp mu rëcc la wala boog ku bàyyi sa cosaan loo jàpp dara ba mu lay rëcc mu peex. kon mbokk yi émission démb ak tey am alxames bu jot waaye par quinze jours lay am bu amee alxames bii dañuy tëpp alxames bii ci topp benn alxames ba ci topp lay amaat tous les 15 jours daal mu jóg peex dina ñëw fii ci Sénégal set ànd ko kan doomu ndeyam Maxtaar mu toile fa kàlla macha ñaari géewal yi fekkul indépendance fas yéene waxtaanee réew mi baax nag xam ne émission bi sa émission la la fi jël. teg la fi waxtaanee waaye yàqu-yàqu yi am tey maxtaan moom tamit war nañ ci waxtaan ba tey wan nit ñi la fi maam yi bàyyi woon ma roqee kaani sàmm am na ay doole yoo xamante ni ba léegi ñu ngi ci seen biir mhm. wax nga dëgg peex loolu insha allah rabbi fii lay amee ñu fas yéene waxtaan di ko tàmbalee ci 33 damee di bargeeg yi géej gi wégéej gi néeg yëpp dañ ci dugg waxtaane Sénégal waaye waxtaane tey waaye waxtaane géej bu leen ko waxtaane siin den waxtaane saalum den waxtaane Jolof den waxtaane Njàmbur den waxtaane Kajoor mhm. den waxtaane fépp lépp loo xamante ni daal loo amoon la ci réew mi mhm. mag ñu baax ñi daan ko def rek den ci waxtaan waaye dinañ am alxames bu jone benn invité boo xam seen dina xam démb xam tey bokk ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci plateau bi muy am dis heures ba 18 heures ba 19 heures deneen ko xaar daal Sénégal set mhm. fii mu jom bay peex ak doomu ndeyam kon Matar kon ñu ñu tàggu cëm sans waaj ñu def noonu bu ko kenn tàmm. jeex na ñu ci Sénégal seet. jeex na rajo Père Makhtar Ngoup jëm ak tey émission mag baa jeex na.